nit ñi la fal déedéet li am kay mooy sama objectif ginnaaw bu ma kësee ba ni cëpp ba ragal ànd ak ragal yàlla ak li nga xamante ni moom mooy sellalug yéene su boobaa sama yéene moom na nekk rek na xàll bi génn imaamu Shaafi ak mu ne su ma amee ab daje ak borom xam-xam boo xam ne dañuy discuter ci benn masala mu ne man samay xalaat moom laay jàpp ni moom moo baaxut ay xalaatam moo baax ba keroog yi gis dëgg allahu akbar samay xalaat man baaxut moom la ay xalaatam baax ba keroog ñuy gis dëgg ñun noonu lañ doon doxalee na génnee ci gémmiñu ma sàmba ak na génnee ci gémmiñu ma demba bu dee yàlla mu ixlaasu niyya bu xësi am rek point bi du am problème dañ koy tëb jàll day yomb waaye gis nga bu ñu échecgee si ixlaasu niyya fii bu ñu siegsee fa la ñuy feebaree nag ba dara du baax loolu dana jur yeneen i jàngoro te yeneen i jàngoro day feeñ ci tomb yi may bëgg a tudd tamit kon sama yéene sama objectif na nekk dafa am mbir mu gaar ñu woote ne nañ ci suuraa nangam nangam jiikat xew na ci biir université bi wala boo bëgg nañ organiser benn programme boo xam ne diw oustaz diw sàngam lañ war a woo pour mu ñëw defal ni waxtaan benn waaye boo xam ni moom daa xaw a doy waar rek affaire sentiment ak affaire moom a neex rek ñuy seet mawdoo bi ana ban oustaz lañ jàpp ni moom kat moom moo ko gën a mën a traité loolu day am nañ ko bàyyi xel loolu yéen ahlul ahlu shura dinaa leen ko bàyyiloo xel nit ki mën na la ëpp xam-xam fuuf ba kenn du ko werante ba yow mi mu ëpp xam-xam sax doo ko werante xam nga ko waaye yàlla subhanahu wa taala ci boppam kenn ku ci nekk daa am ay tomb yoo xam daf la caa defal ay xusuusiya loolu yéen a ma ko gën a xam sax xam naa ni ndax yenn ti mawdu yi yàgg nañ koo jox ab oustaz mu traité ko noo xam ni xam ngeen ni buñ ma ko joxee man nii mënuma ko buñ ko joxee El Hadj Malick mii mënu ko buñ ko joxee mbokk bii mënu ko loolu day am te moo ne moo ne de am na boo xam ni kañ ko jox mu traité ko ba mu jàdd yoon ku ko xam-xam bu ñu ko indi woon du ko man parce que yàlla subhanahu wa taala moom moo def kenn ku nekk am na ay jago yu mu la defal ci lenn moo wax tax borom xam-xam yi seen ak maanata yeggoon ci lépp luñ jàpp ni lii moom. maanaam nekkul seen domaine lool duñ ko nangoo jàngale da ngay dégg ab muhaddis wax dañu kii muhaddis rek la doon jàngale jàngalewul dara ñun waa moom xanaa daa mënul naxu daa mënul sarf daa mënul luqa daa mënul balaax daa kay am na lu mu ca man waaye loolu nekkul woon ak domaine am ba nga xam ni moom lu way bëgg a laaj boo dikkee mën nga ko caa laaj moom la gën a nekk domaine am leera na am ragal yàlla gu doon di ca nekk niki loolu nag man su ma dikkee ñàkk a seetlu gi yéene buñ ko tëbee objectif bi du nekk rek nañ am ku ñu régler suñu solution bi man daal oustaz diw mu wax dëgg yàlla moo ma neex ay moo ma neex yëfi moo ma neex loolu day faral di am nga xam ne xalaat bi ma koy génne même su ma waxul baatub moo ma neex looloo nekk sama xel maanaam daal moom ay waxtaanam moom daf maa nànkam yëf yu ñàkk sell yooyu su ko defee ma proposé ko pare nag di insister ci nañ ko jël fekk boo xoolee ba ca biir da ngay gis ni fa tànn nga balluloo sax sellu yooyu bokk na ciy jur échec yi ñuy am su ko defee sunu borom subhanahu wa taala ci alageenu kenn kookee ndax wattaqu fitna la tusibanna alladina zalam minkum xaasa dañuy def waxtaan pare mu échec benn résultat du ko am te fekk sama balan la woon mooy benn pombiteer bu nëb bu nekk ci saako ñu naan jëru jërta génne ndax kenn la fi mu faral nëbaaleen saako bi yépp nag kon nañu xam ni objectif bi na nekk nañu am solution gémmiñu kum bàyyi ko nag baax xam naa ci mën naa cee wax ma wax ci xaw ma ci ma nopp keneen wax ci su dëgg génnee te bàyyi ko ci làmmiñu keneen ma kontaan ci sant ca yàlla te xam ne loolu moo nekkoon suñu jubluwaay ba may ñëw solution bi na génnee ci man taxumaa jóg waaye na solution am moo ma taxoon a jóg bu fekkee ci man la génne nag loolu daa bokk ci li ñu sant yàlla ndax wax dëgg yàlla ndam la ab julit ñu daje di suuraa mu génne xalaat boo xam ne bu ñor la boo xam ne ñépp dëppoo nañ ci bañ ko génne exécuté ko ci terrain mu jur ay njariñ bi laa sokk da nga koy am tiyaaba yu bari loolu ndam la waaye ndam la mujjee ko bàyyil ba après bañ suuraa ba pare ba jëfee ko ba mu am njariñ nga doog a kontaan sante ko yàlla waaye tey jii moom loolu bu ko toppatoo kooku mooy ñaareelu tom mooy sama objectif sama himma na nekk rek nañ am xàll ak fu mu mënti bàyyi koo baax la ñetteelu teggin yi nga xam ni jaadu na ci ñi ñu tuddee ahlu suuraa wa kenn ku ci nekk mu am ko mooy bokk na ci teggin mooy sa mbokkum jullit bu dee wax bul ko dog bokk na ci suuraa yu bari yuy yàqu loolu da koy sabab dañ lay jox nga wax ba pare keneen di wax wala joxaguñ la nit di wax ci biir waxam nga gis cab njuumte nga dog ko wala muy wax ab xalaat di këll nga dog ko waaye ana bind am nga ab xalaat ñor na yaa xii bul yàkkamti bind ko ba ba ba sa parole yegg si dafa bokkul ci teggi ni xam-xam sax nit di wax nga dog ko loolu borom xam-xam yi dañ koy tere ndax bokkul ci teggi même li muy wax bu fekkee waxi kasaaw kasaaw la waxee ku daanu ci kaw saret comme ni ñu koy waxee naa ko déglu ba mu pare su paree ma doog a xool indi sama xalaat tey indi sama xalaat googu am nay tegginam tamit nag dina ñëw waaye daal jaaduwut tegginuwut sama mbokk di wax ma dog ko donte li muy wax wuute nag li may wax donte li muy indi man xalaat la yu gannaawe ci sama gisin ndax ci sa gisin moom gannaaw ndax bu gannaawe woon ci moom du ko génne déglu ko xusnul istimaa ba mu noppi nga doog a jël say xalaat bu dee loo dëppoon nga wax bu dee gis nga beneen nga wax bu dee daa jum ca wax ja nga wax ila axiri ma hunalik loolu jaadu na kenn ku nekk ci ahlu shura mu di ko bàyyi xel ndax léeg-léeg nit danay wax nga dog ko di nga yàq ñaari mbir mbir bu njëkk bi nga yàq mooy mën nga koo affaire la ba lim naroon a wax daal di koy fàtte ndax dog moo mel noonu ñaareel bi ngay yàq mooy doomu aadama ci boppam mu baaxoo wut bindoo di bëgg di wax ñu koy dox loolu ñi ko nangu bariwul kon mën naa jur ñaggi-ñaggi xol kon nan koy bàyyi ba mu wax ba noppi su noppee nag ba pare ndax yonent bi noonu def sallallahu alayhi wasallam ndeysaan yéefee dañ dañ ñëw taaraaraaraaraaraara di wax wax wax wax wax wax danaan la pare nga nga ne déedéet mu bàyyi la nga taaraaraaraaraara ba yeggal mu ni pare nga nga ne waaw mu doog a commencé loolu soo demee ci suuratu Fussilat bi muy tàmbali wàcc noonu la xewe woon waaye di kër di wax wambala la la ba yeggal mu ne ko noppi nga mu ne ko waaw noppi naa mu ne ko déglul yonent moom commencé jàng suuratu Fussilat di ko teel di ko teel di ko njàng ma yegg jur njëriñ lool mu jeex kon loolu mooy ay teggin mooy kii wax naa ko déglu ba mu yeggal su ma amee lu ma dëppoowul ak moom ma wax su ma gisee beneen xalaat ma wax su ma ne ila axiri ma hunali allahumma lu dul ma gis loo xam ne damay bañ fàtte ko ci diggante bi wala boog ma gis ni daal dog gi daal mënuma ko bañ a muñ a muñ ma ñaan ko loolu ma teggin la doo may ma leeral benn baat rek doogalam su nee la mayu ma la bul mer bul mer ndax mayu la moo ko moom mayu la du ci am benn bàkkaar yaa ko ñaan moo bañ su fekkee may na la nag alhamdulilah su ma amatoo ci benn yeddaange nga wax ni ko ah yaa xi sa xalaat boobu moom moom taay koo yeggale daal ndax dama yaakaar day jur ay lor sa xalaat bii kat nangam nangam wala boog gis naa ne daal na nga wax la nga bëgg a wax yaa xam loo bëgg a wax ñeenteelu tomb bi moom mooy maanaam xusnul istimaa bokk na ci teggini suura mooy ma rafetal ni may dégloo nit ki bañ koo sobantal bu ma jàpp ni xalaatam yi kiiwul rek ma mel ni ku yëgul ni mi ngi wax déedéet loolu bokkul ci respectenten en tant que ay jullit yoo xam ne ñu ngi daje di yittewoo mbiru jullit même waa ji li muy wax ma ni bu ma intéressé wut allahu akbar kan moo gën a ñàkk a intéressé ay wax yonent bi saa sallam ab yéefar buy wax di wax wax yoo xam ni kenn xamul wax yi fu mu jóge waaye day toog ndeysaan di ko déglu di ko déglu déglu bu yaru te rafet di ko déglu rek muy wax di wax di wax te wax yi amuy wax yépp daanaka xam ngeen wax yéefar moom jëmut kër waaye yonent bi da koy déglu bu mu yeggal mu doog a jël kàddu bu dee am lu mu cay critiqué mu am lu muy dajj mu wax kon xusnul istima bañ laa dog waaye def li ñuy tuddee tamit xusnul istimaa mooy rafetal lu may dégloo ah may la nopp ba nga xam ni maa ngi déglu donte sama biir xol sax li ngay wax man wax dëgg yàlla wax la yoo xam man sama niveau xalaat passé na foofu waaye naa la déglu ndax loolu mooy yëgante diggante jullit ak mbokkum jullitam loola bokk na ci liy gën a roofalante ay xol ngir ñu mën di génne ay solution ci xal ay xal ci daje bu ñu mën ci am juróomeelu tomb bi mooy an la yastathira bil kalaam akthar mimma ihtaja ilayhi aljamaa buñ la jox kàddu ngay tarararara di wax wax ju ëpp li nit ñi soxla gaa am na ñoo xam ne yàlla dafa leen nattu mënuñoo tënk wax loolu am na am na koo xam ne fi ne boo ko waxoon mu leeral dara mën naa wax addinay wax te li muy wax du leer am na koo xam ne fi mu ni ñaari baat ñett mën na ko wax rek affaire bi leer nañ loolu nag lañ koy bàyyi xel su tante niveau yi ma doon laytaayee tomb bi moo nekk noonu moo tax yonent yàlla na inna min al bayaani la sixran mu ni bokk na ci ci saxiix muslim boo demee bokk na ci lii wane ne imam bi jiite ku dégg fiq la ku dégg diine la ah ku yàlla baaxee la mooy buy xutba na gàttal xutba bi suy julli na guddal julli gi te ñu xam ne ndeke mën a leeral daa mel ni ak njabar da cee taqu dégg ngeen wax ci mën a leeral dafa mel ni ak njabar da cee taq daa mel ni daal waa ji mën a leeral bu dee wax day njabar xolu nit ñi nga xam ne lu mu wax rek direct lay def ca xol ya moo tax mu ni inna min al bayaani la sixran loolu mi ngi saxee muslim mën a leeral dafa mel ni ki mën a leeral bu dee wax day njabar xol nit ñi lii wax day dugg ba ca xol ba te day gaaw a dugg loolu nag du ñëpp ko am loolu fadlullah yuti man yasha wallahu dul fadlil azim allahuma inna nasaluka min fadlik kon loolu dañ koy bàyyi xel su ko defee nu xam ni kon ci ahlu suuraa ñi daje am na ñoo xam ni leer nañu làmmeñ mën a wax am na ñoo xam ni seeni làmmeñ bala ñu expliquer ba nga comprendre day yàgg kon ku nekk nag moo war a yar boppam ci bu ñu ko joxee kàddu lu mu gën a mën a résumer tënk ay kàddoom mu gàtt waaye alaaji war a wax Moussa war a wax Ibrahim war a wax kee war a wax kee war a wax te temps bi dañ koo limité defe naa noonu ngeen di sóoraa da ngeen koy limité heure bii lay yem yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yu daje la ah ñu ngi war a jàng ñu ngi war a nàngam benn waaye moom mi ngi war a wax ci cinq minutes mu dem jël vingt minutes loolu day faral di am loolu bokkul ci teggini suuraa ci islam bokkul ci teggini suuraa ahlu suuraa ñoom kenn waru cee tegginoo loolu juróom-benneelu tomb bi moom mooy maanaam ñu jox cër ci jiite jataay bi ak li ngay wax lu mu baax baax lu mu ñor ñor ñor bu la waxee noppil da ngaa war a noppi loolu moo nekkoon doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon doxalinu sigaaru saxaaba ci kanamu kibaaru saxaaba di wax di tontonte kilifa ci boppam sax daa nekkut doxalinu jullit ñi benn bis benn waaye dafa ñëw ni Abdullah bin Mas'ud yow yow yow yaa ngi nii nga naan góor ñi nañ yëkkati seen tuba yi cëkkal te yaa ngi nii sa tuba yi yaa ngi nii di buubu pourquoi ngay ngay buubal sa tuba ji di ko ko laaj ci laajoon waa ji di ko expliquer mu commencé tararare amal fekk fa da koo dóor ba mu bëgg a dee mu ne ko dañoo war a respecté sunuy boromi xam-xam ak sunuy kilifa ba bu ñuy wax ñu xam nan la ñuy waxee ak ñoom te bokkul ci teggin ñuy wax ngay tontu allahu akbar mu taw ko ba mu bëgg a dee kon gis nga maanaam daa bokk ci teggin ci kilifa yi te kooku jiite jataay bi kilifa la ndax jataay bu nekk fokk mu am jiit te loolu sax bokk na ci tomb yi mooy maanaam jataayu suuraa bi daa war a am jiit ku jiite suuraa bi nga xam ni ku mu jox kàddu moo war a wax ku mu joxut doo jël loolu mooy doxalinu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonente bi moo naan ah waa Abubakar lu ci sa xalaat Abubakar nangam nangam mu ne waa woo leen diw diw yow lu ci sa xalaat kon mooy joxe moom yonente bi ba muy jiite sallallahu alayhi wasallam niki noonu as-sahaaba al-xulafa al-arba'a min ba'di sooy wax lu mu ñor ñor bu nee la noppi la nga noppi léeg-léeg suñu suuraa yi fekkewuma seen suuraa waaye da ngay kuy wax ba mbir mi bëgg a jeex mu ne sa heure jeex na de nga ne ko non may ma may ma tuuti may ma may ma mu ne la noppi la nga ne ko non foog ma foog ma àggale wax dëgg yàlla yow yaa ngi jéggi sunna de sañ ngaa ñaan nag ah man de su ma sañoon nga baal ma wax ju nekk wa qulu linnaasi husnan ki jiit sax mën nga koo wax wax ju rafet mu may la te fekk yéeram nekkul woon may la yàlla mu ne wa qulu linnaasi xusnan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ah man de wax dëgg yàlla point bi soo ma dimbale woon may ma tuuti rek ma yeggale dana baax lool mën na laa may su la mayul nag nga lem say fooy nga noppal mu jeex mbaax nga bëggoon yàlla na ko yàlla génne ci làmmiñu keneen amaana yéene bi nga mën naa tax sax li nga naroon wax far yàlla kenn waxal nga ni waa koy mi ngi noonu loolu laa naroon wax loolu ci yombale yàlla yi la bokk loolu du par hasard de ci yombale yàlla yi la bokk laax ndax yàlla deful dara par hasard kon bokk na ci teggin ya mooy ñu jox cër ki jiite ginnaaw bu ñu amee ku jiite jataay ba pare mooy joxe kàddu mooy nangu kàddu mooy wax heure bi su dee ba yokk war a am moo war a yokk su su fekkee jataay bi jar naa tas moo koy tas te it kenn sañ te jug ci jataay ba lu dul daa tàggoo ñun yii teggin xaw ma ñu ngi koy sàmm tam xaw ma ndax ñu ngi koy sàmmam sàmmuñu ko man néew na lu may gis julli ñi di ko sàmm gis ko jékki-jékki rek ah ñoom suura portable am ni kar mu ne allo daal di génn dem te waxul maa ngi dem. loolu ñuy xeet da aka am solo ah ñu ànd ci yoon di tukki falaw amir ma war a jënd orange ma eh jaay ma orange déedéet yaa xi amir dama bëgg jënd orange loolu muy teggini islam wallahi islam dafa organisé wu ba nga xam ne gis nga seen doxalin yii képp ku mu yéem da nga xamut dara ci islam laa wax ak jamono lu mu avancé avancé laa wax ministère fii kii fee fee dugg fee génn fële ku jàng xam diine damay loolee ak póotit mu ñu sàññ ci naaj yàgg yàgg day giima yem ci yow islam lépp la organisé ah ax yi dama bëgg jënd orange de téemaa jënd léegi ñàkk tàggu amir lan lay jur nga jàdd tàggu woo ko di jënd orange mu joxe benn ndigal aywa dugg leen ci oto bi ñu dugg gisuñu la ñu dem suñu yoon waaye boo tàggoon amir ni ko maa ngi jënd orange ndax sañ naa jël oto ni kaa leen dem te fekk ñëwagoo ay njëriñ yoo xam ne yu nu mën a teg bët la bokk yi nga xamante ni yooyu xamuñu ko ci yonent bi sallam moom muy jàngale moo gën a xam li mu jàngale yan njëriñ lay jur ba mu des nag bu ñu digalee mooy yàlla la waaja ne woon gaa yi jàngeen di yéen xam ngeen ne yonent yàlla bi nee na amir lu mu digal dañ ko war a topp ñu ne waaw mu taalub taal ni leen kaa leen dugg ci taalub taal ni leen kaa leen dugg léegi ngeen lakk seen bopp ñi naan nañ dugg lakk ndax amir a ko digle ñi naan déet bu kenn dugg ah xam naa buñ duggoon rek sonn sonn lool ba loolu amee ñu ne déet nañ laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne gis nga bu ngeen tàbbi woon ci sabara soosee ba keroog sabara si yàlla sa nag dootu leen génnati ndax amir dañ koy topp ci ndigle lu baax maasiya la kenn du ci topp amir kenn du ci topp bàyyi kenn du ci topp jëkkër kenn du ci topp leneen kon amir dañ koy topp moo xam ki jiite suura la moo xam ila axiri ma hunalik kon dañ koy topp ginnaaw buñ ko amee di ko déggal kum jox kàddu nga jël kum xañ kàddu tamit nga bañ a jël beneen bi ci des muy juróom-ñaareel bi wala juróom-ñetteel bi mooy an la yastaxira an la yastasxira aw yastaxifa bi aaraai l axarin mahma kaana wala mas mahma staxafa keneen ku génne ay xalaat ak nu xalaat ba suufe suufe bul ko suufeel bul ko wan ne sa xalaat bi waay waay lii nu ko nit di xalaatee waay loolu kenn du ko wax doomu aadama ci moom dafa fonk ay kàddoom doomu aadama ci boppam bëggul ku ko jànni wala ku ko sobantal te loolu sax ci islam dañ koy tere ah man de yaaxi sa xalaat man gisewu ma woon noonu daal ndax daal gis naa li waxulu linnaasi xusnan ba léegi waaye waaye yaaxi lii waay noppi waay lii naka la ko nit di xalaatee comme ni ko mbokk yi defee bu ko defee mooy mu daal di gaaw mer gis boppam dootul sawar sax ci di wax wala moom mu bëgg a fayu nag yooyu yëpp di am ci suuraan bu ko defee njëriñ di judd mu bëgg nag nga wax yooyu it ba mu sobantal la di fayonte ay fayonte di am ci ahlu suuraa nga xam ni ñoom la ñu war a génne su doon université ñaan moo war a doxal ci mbokk yi dund sunna ci université yëpp yi musiba li ñu ko yóbbee mooy ñàkk a jaar ci tomb yi nga xam ni moom la borom xam-xam yi tër ni yii moom ahlu suuraa wala aqd war nañ ko maanaam am kon lu xalaat bi suufe suufe lu xalaat bi nangam nangam nit nag mën naa wax lu reer lu ñu ree ko nag loolu moom aayu dox dëgg yàlla mën naa wax lu reer lu ñu reelu te ree googu du fekk reeg istixfaar la loolu mën naa am waaye nag ci luy lépp loo moo xam ci reega la moo xam ci tontu bañ koy tontu la moo xam ci ñàkk yëg gi nga koy yëg lu mën ci am daal bu ñu feeñal ni yow kat li mu wax moom yow waxi waxi dof la kenn déedéet bu wax loolu ah man de sa xalaat bi wax dëgg yàlla ànduma ci woon foofu la ñuy jaar dem ca beneen tomb ba mooy an yu laatif ah wa yuxsin naqd alrayi alladi lam yuwaafiq bilxujjati daamiga walbarahin albayina su fekkee daam koo xam ni dafa joxe xalaat xalaat bi ànduma ci gaa bu ma ko suufal bu ma ko nangam waaye même bu ma koy naqdi tamit naa rafet na ma koy naqdee na ma koy defee naq mooy ko critiqué naa feexee nu ma ko rafetalee boobu seet ay kàddu yoo xam ne ah man de wax dëgg yàlla sa xalaat bi daal yaa axi man daal gis naa ne mënoon nañoo seet beneen daal ndax nangam nangam nangam te it moo ne li nga wax yow su fekkee def nañ ko mën naa jur nangam nangam xanaa seet yow est ce que loolu yaa ngi ko doon bàyyi xel damaa yaakaar ne loolu boo ko xalaatoon xanaa nangam gis nga mu commencé moom yaa ngi koy wan njuumte yi nekk ci lim wax ba pare doo koy wan mbaax mbaax yi nekk ci li ngay indi yow lii mooy almujaadala billati hiya ahsan ah dañoo war a am suura ñu nañ ko defee saal sàngam waa ji ko wax xalaatam la joxe man ma gis ni benn suura bi dana tombeek heure guddi guddi danañu fekk parce que heure bi ñuy tàmbalee tax te saal boobu amul ay làmp man ma gisaan ni nombre personnes yiy ñëw xajul ci ban yi nekk foofu moom ba muy wax lu lépp xalaatu ko gis nga ak yeneen ak boo ko doon topp noonu ah benn waay wax ko moom xëy na xalaatul loolu dëgg yàlla loolu mooy njariñal xalaat ndax bu doon moom kesee na la danaa nañ leen fa dem ñu dem ba yegg fa waxtu timis jot gisuñu benn lamp ñu doog a wutaat beneen xal fekk ñàkk a suuraa koy waral ñu dem ànd ak mbooloo mi gabar gabar ba àgg ñu ne nangam heure sangam 3 heures la war a tàmbali ñu dem ba ñëpp toog mu des 25 personnes ci biti ñu ne nu ñuy def ñu ne ah kon nañ jéem a yokk ay bank bala ñuy wari bank ba ñëw heure bi jeex nañ dem feneen ñàkk diisoo loolu lay indi bu ko defee ma ne ko ah man de yaa xii sa xalaat boobu de gis naa ni moom am na xalaat bu ko gën a rafet man daal li ma gisoon mooy nañ ko defoon salle huit ndax kat yow est ce que seetlu nga ni salle boobu nombre personnes yi war a def suuraa bi xajuñ fa ah mu laa di xalaat wax nga ah moo ne wax nga dëgg de tey suuraa bi heure bi ñu koy def xam nga ni balaa pare timis danañu fekk te xam nga ni salle boobu amul làmp waaye waaye salle boobu nu ñu fay defee suuraa foofu nga xam ni kenn mosu ko fa def amul ay làmp jànni nit ki mu daal di mer te fekk mbaax la yéene woon ci génne xalaatam loolu kenn du ko def dañu koy dindi ci dindin wi gën a rafet ba pare daal di koy jox ay xalaat ci anam yi nga xam ni moom sax boo pare dalay sant nag dalay sant xam ni jubbanti nga ko ci jubbanti wi gën a rafet bil xikma wal mawidati al xasana mu gis ay njuumte ba pare doo gis mbaax mbaax yi nekk ci li nga wax te boo paree bul ko ndamoo nag ndax loolu mënoon naa nekk yow ndimbalu sunu borom rek la lu muy gis loo ay jaam kon beneen bi ci des moom mooy maanaam bokk na ci ñi war a tànn ñu nekk ñu yaatu dënn tamit nekk ñu yaatu dënn bañ a nekk ñoo xam ne duñ mën a accepter lu bari ndax buntab suuraa mu mel noonu léeg-léeg suuraa yi day tàng jër nag ay suuraa day am léeg-léeg suuraa yi tàng jër ñu ne une heure de temps la mu dem ba trois heures de temps gis nga yëpp day faral di am ñu génn dënn yi mel ni du du du du du wut solution rek moo ñu taxoon a jóg loolu day am ma ni dënn yi danaan tàng ba Aboubacar ak Omar ku nekk di ratt sa morom loolu mas naa am benn yoon Aboubacar ni ko ratt poñe Omar ni ko ratt poñe yonent moo dox seen diggante sallallahu alayhi wa sallam ndax kenn ci ñoom ñaar da ngeen may wax ni daa am ay bëgg-bëgg ba wala ay nangam-nangam yu tax mbir yi dox seen diggante déedéet loolu daaw ndeysaan mbaax rek leen ko yóbbee woon yonent bi ni kii la ñuy def amir Omar ni ko kii la ñuy def amir coow li ni kur ba yonent bi di ko dégg ñu ni rattante poñante ba yonent bi génn sallallahu alayhi wa sallam loolu day faral di am kon loolu mbaax rek la nag ndeysaan léegi da ngay bëgg baax bëgg baax gi moo lay yóbbee sax yenn njuumte yi kon. bu ko defee ñu nekk ñu yaatu dante mën a accepté ñu sànni say wax ak ñu istigfaaf say wax donte def dañ ko te waruñ koo def yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne maanaam ñu nekk ñu mën a accepté te it nag àgg ci xàll bi rek nekk luy suñu yitte amma bu fekkee nag dafa nekk liggéeyu mbooloo comme nii ma ko doon waxee ci bopp ba léegi mu nekk liggéey boo xam ne amal jamaa yi la comme ni ñu koy waxee organiser benn mbooloo organiser wu ñuy liggéey ñu sant leen nangam. comme niñ ko xamee te mu nekk lu gën a gàtt loolu kenn mënu ko dàq islam am na cosaan su fekkente ni ñu ngay sàmmoonteeg njàngale islam te bañ caa dugal leen lu buuteeg njàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñooñee ñuy tànn alal aqal li gën a néew minimum defe naa ngeen di wax war naa nee noo nekk ñoo xam ni xam nañ dara ci islam boobu mënuñoo jël ay jullit yu toll nii ñu nekk fii yépp jël ay gaa yoo xam ni français kese lañ jàng xamuñ dara ci diine soriwuñ ci alquran xamuñ ci xadis yén sa salam ñu leen boole ci ahlu xall wala aqdi ko ko jaadul su ngeen ko defee nag maa ngi leen di wax jaadul la jaadu mooy minimum nañ am lu ñu xam ci islam waxuma nañ nekk ay boromi xam-xam de comme ni ko ñenn ñuy waxee déedéet du caagee ni buñ ne ahlul xall wala aqd wala ñu ne ahlu suura nañ nekk ay boromi xam-xam déedéet waaye alal aqal nañ nekk ñu xam dara ci alquran xam dara ci sunna yonente bi xam dara ci doxalinu salaf ndax faaqidu say ila yuti defe naa du organiser ngir nañuy fexe ba nit ñi fii la ñuy toog ak digg loolu mën tax du déedéet waaye lu mu doon dañoo war a wut ay source wala boog alal aqal bu mënta nekk ñëppit wala mu nekk ñu bari nañ am boog ab borom xam-xam suñu biir bopp wala koo xam ni moonu tane nga xam ni léeg-léeg xalaat yépp da nga génn dëppoo rafet ci benn mbir waaye mbir moom islam daa wuuteeg moom islam daa wuuteeg moom comme ni ma koy joxee mbokk yi misaal léeg-léeg rek dañuy daje suura ñu ne léegi de daaw wax dëgg yàlla daa mel daa fay ah léegi est ce que duñ jéem a seet ay solution yu ñu def yu ñu yëngalaat gars yi benn waaye mu ne ah am na benn film bu ñu tuddee film rabiat yii kooku bu mu ko fekkee fële bi ñu ko tegee wax a wax a wax tagg ko gars yi ñu ne kon acca nañ ko def ah ñu daal di koy def léegi mën na tiija léegi mën na tiija fekk na am na ay mbir yu ci nekk yoo xam ni gaa xëy na ña ko doon def bañ ko doon def dañoo xamul ni baaxul wa illaa bokk ay mbir nga ca ndax bu fekkente ni ah fecc fecc la yaakaar naa ki fecc film bii ka ko war a mën a seetaan man day moom bu fekkee foofa dagan na kon seetaan ko ci télé Sénégal bii day dal di dagan su fekkente ni xool xaram dagan na ci écran xool ko ca foofee donte baax lañ ca jublu dogal ko fii dagan na beneen bi ci des mooy loolu istixfaaf la ci salaf ndax soo demee ci séeru alamin ni balaa nga jàng rabiatul adawi mi niy wax ni moo meloon nii loolu du dëgg rabia melul woon nii de rabia ku ragaloon yàlla la koo xam ni da daan fanane julli ba fajar jot tuuti la daan tënt bu jógee day caw boppam te naan fii ngay xullee rek ba xëy dee te doo naa fi la dara guddi kon rabia mañ gis ca siyar ak rabia mi ñuy teg bokkul kon yooyu ay muxaalafaat la yoo xam boo ko toppee du jeex kon ndekete loolu bu fekkonte ni tane nañ wala am ko ne sunu biir ah yaa xii kooku day moom wax dëgg yàlla xal la waaye xal la buy jur jàngoro li olof yi naan saafara suy jur jàngoro la saafara suy jur ay jàng kon nag léegi nañ seet beneen xal gis nga wa hakada loolu kon moo tax alal aqal nañu am lu ñu xam ci islam wa illa boog ñu xam yenn ci ay texte wala ñu am ku ne suñu biir koo xam ni buñ naree jàdd texte yi kat moom danañu jubbantiwaat loolu moom mbooloo mi war na ca am mbaa bu ca amut war nañoo seetaat mbooloo mi wala boog ñu tas ko daal di koy nosaat niki noonu bokk na ci alal aqal tamit ñu nekk min ulil absar aw ulil nuha borom xel yi ak borom ñu ñaw xel ndax wax dëgg yàlla yéen ñii dund yéen a ma gën a xam am na seen gaa yoo xam ni macha allah dafa mel ni seen xel yi moom yàlla daa am lu mu ci def dañoo ñëw xel lool te rafet ay xalaat loolu dafa am loolu tekkiwu ni keneen ki rafetul ay xalaat waaye am na ñoo xam ne moom yàlla subhanahu wa taala moo dàgg seen xel yi ñooñu tamit bu ñuy tànn war nañ ñeen a bàyyi xel dugal leen ci ahlu su xall wala ahlu xall wala aqd wala ahlu suura comme ni ñu koy waxee maanaam ñu nekk ñoo xam ni kat ñoom ñu xóot ay xel lañ ñu ñaw ay xalaat lañ ñoo xam ni dañuy mel lu gis lu sori comme li yàlla tàggee ulil aydi wal absar maanaam nekk ñoo xam ni ulil nuha ulil albab boromi xel yi nga xam ni toujours duñu xool rek li ci kanam waaye danañ xool la ca gannaaw lan la li ci ginnaaw lan la yan lor la mën a jur ci misaal ba léegi pour toujours muy gën di leer ah léegi danoo jékki-jékki ba mu yàgg yàlla tere rek ñu ni gars yi dañoo ñëw ci suñu jàkka ji ci misaal ñu ni léegi dañoo bëgg a toj suñu jàkka ji mu nekk ay waxi kese nag mu nekk ay waxi kese ah gars yi jug wax dëgg yàlla ànd ak tàngoor lool jàmbaare lool bëgg ñu ni toj moom bu fi naree am pale la ñuy toji ndax danañ comparer toj jàkka jeeg toj pale pale ndax bu fekkente ni dañoo toj bu fekkee wax la kese mu nekk wax joo xam nar nañ ko def muy dëgg ndax bu ñu tojee jàkka ji ba noppi ñu daal dem toj pale ndax moom danañu jik ñun waxuma la jik jullit ñépp kon ñuy xool awaaqib yi mujjantal yi lii lii la suñ koy faj duñ koy fajee moo tax suñu cheikh xafidahullah docteur ahmad loolu lay wax mu ne ñu bari day am mbir yu am ñu ne nañ ko fajee marche wala nangam fekk déedéet maanaam jullit moomee wut noonu mbaa même bu doon marche sax du doon ci ni ko nit jullit ñiy defee tey ah acca nañ dem pale suñ demee pale dañuy sànni vitre yi ay xeer toj kër laa waat comme ni ko gars yi waxee loolu déedéet loolu du xalaat li am kay mooy bil xikma wal mawizat alxasana ah ñan ñoo ko nar a def ñii la nañ seet pexe yuñ def ba àgg ca kilifa ga waxtaan ak moom ndax borom doole kenn du xeex ak moom ak ak ila axir ma hunalik suñ jàkka ji kat wax dëgg yàlla fonk nañ ko nangam nangam nangam wax ko ci rafet ah xaw a tiitalaate tuuti nag du nappaate waaye jàkka jii nag jàkka yàlla giñal nañ leen ci yàlla ku ko toj nag ku ne dañ ko jëfee ak sa borom tiital leen tuuti ah loolu bu amee yaakaar naa yàlla subhanahu mën na ci def tawfiq te mu ànd ak yéen ay sel insha allah kon loolu war naa am maanaam ñu nekk ñoo xam ne ñu xóot ay xalaat lañ ñoo xam ni wax dëgg yàlla du ñu xool li war a xew suba rek waaye ëllëgati si biir liy juddu war nañ koo xool benn bi ci mooy an yakunu umana yastatiuna ixfa sirri nañ nekk ñu wóor ñoo xam ni war nañoo mën a sàmm est-ce que yéen ñiy def suuraa ndax amul ay mbir yoo xam ne bu ngeen ko génnee jaadu na ngeen nëbbu ko ba keroog mbir may jot loolu am na wala amut am na du caage ne lu ngeen suuraa bu ngeen génnee ñu wasaare ko ku ne jot ci kon kay bu ñu doon suuraa nañ toog fi ni gars yi toog leen fee xaar ñun ñu suuraayee fi lan moo tax bu ñuy suuraa ñu wut fi ñu dem te gars yi duñ fa nekk parce que daa am mbir yoo xam ni ahlu suuraa rek ci ñoom la war a yem léegi ñu ngi suuraal leen xàll loo xam ne bu génnee mën naa yàq daawa bi ñu di ko suuraal mbooloo mi tànn nekkuñ umana ñoo xam ne moom felli waxtaan lañ bëgg ah ñu génn benn waay dem felli waxtaan ah ñun de alhamdulilah ñu ngi bëgg am seen ndax suuraal nañ tey nangam nangam benn waay dégg ko yóbbu ko nag fañ doon bañ mu yegg fa musiba daal di am kon dañu war a nekk umana ñoo xam ni denc secret aka ñu koo man mel ni Fatima kero bi nga xam ni Abu Jahl ñëw nañ fan la yonente bi dem ah xaw ma fu mu dem de boobu diisoo nañ dañoo diisoo ba pare doog a dem Abubakar doomu Abubakar ak surga bi sàmm ak yonent bi bañ diisoo ñu xam le ni xaaru sawru lañ jëm gis nga xaaru sawru fa lañ jëm buñ fa àggee fa la ñuy làqu danañ fa am lu tolloo ñetti fan amuñu lu ñuy lekk kon yow del indi li ñuy lekk su ko defee kii topp ci sa ginnaaw ak xar yi ngir tànk yi du feeñ ah yow yaay des ci kër gi yow lañ fiy bàyyi bu jant bi doon wàcc ba ci suufit bul wax fan lañ nekk ah aca Abubakar yow maag yow ay ànd lii suuraa la woon da ngeen defee ni dañoo jekki-jekki rek sànni ko tëlli ko rek mu dem déedéet waaye bañ ko suuraa ba pare ñee def ba mu des Fatima moom mi nga xam ni moo war a nëbbu secret bi moo ne bu ñu leen woon yonent bi ma nga jëm xaaru xiraa de xaaru sawru yàlla moom wattu na yonent bu pare saanis ne isuma fi lgaar is yaqulu saahibi la tahzan inna allaha maana fa anzala allah sakinatahu ila axiri aaya waaye nag pour jàngale tax na Fatima bañ ko laajee fan la dem moom xamut moom xamul ba ca la ko Abu Jahl pesee ba jaaroon nopp bi dafa faq wadd xoolal loolu ni mu mettee di ko kajj ci biir bi waaye taxut ba léegi mu wax fan la yonent bi nekk sallallahu alayhi wa sallam kon loolu muy ixfa aussi ndax am na mbir yoo xam ne jaaduwut mu génn te waxtu génnam jotut kon war nañoo nekk umana yastatiuuna ixfa sir dañu nekk ñu ñu wóolu ñoo xam ni kat xamee nañ leen sàmm secret beneen bi ci des mooy ñu nekk ñoo xam ni war nañoo mën a nekk ay mag wala boog bu nekkul ay mag ndax xëy na mag toujours mooy ëpp expérience ci yenn yi mooy gën a xamul doxalin ah li di xewoon na fële daaw ba mu xewee lan la xale moom xëy na yu bari mën na ko bañ a fekkee wa illaa bokk bu dee nekk xale waxuñ ne xale bu mu ci bokk xale nag buñ ko waxee xëy na ku néew ci atakum xel moo tax ñuy wax waaye bu ko nekkee it mën naa nekk xale pare nekk koo xamante ni ku am xibra la ku am stratégie bu yaatu la ku am xam-xam la mën naa nekk ku gën a tuuti ci mboolam waaye moo fi tane buñ fa masala diine léegi moom lañ koy laaj ah mën naa nekk mag te fekk moom daanaka moom taxu koo demee noona waaye daal nekk ay mag kese wala boog ay mag ëpp ca wa illaa bu dee ay ndawit na nekk ñoo xamante ni ay mag danañ rax ci seen biir ndax léeg-léeg am na mbir yu mag mën a lijjanti comme ni nga xam ne am na mbir yoo xam ne ndaw mën na koo lijjanti su ko defee ñu nekk ñoo xam bu dee ndaw la it taamu nañ ca ndaw bi moom mu nekk koo xamante ni moom lu mu gàtt gàtt na xam lu mu xam ci àll wa beneen bi ci des mooy na xóotum xel nekk ku ñëw ndax am na ndaw yoo xam ni kat maanaam ndaw yu am solo lañ ci daawa bi ci tënk bu gën a gàtt daal loolu yaakaar naa ni moom moo xajoon ci li ñu waagaloon gis ni lii lenn la ci ay tomb yoo xam ni maanaam war nañ koo tënk ci ñi ñi tànn ñu nekk ahlu suura wala bu dee kenn ku may diisool yenn ci ma wax nekk ci moom nu ngi jéggalu ci du ma wax guddal gi damay wax gàttal gi ndax dëgg-dëgg ku xam suuraa ci islaam ak solo si mu am man damay wax damay jéggalu gàttal gi ndax dëgg yàlla mbokk bi mu ñuy sant waxtaan ci tëkki lañu fekk yaakaar naa ni lii ñu ci fa jot a wax tey ci fajar tey ci fajar lañ ko waajal tey jii ci fajar kon loolu nekkut lu gudd beneen bi ci des moom mooy jéem nañoo gàntal waaye def noo njatt moom dañoo indi ci far force waaye ñu ngi ñaan yàlla ñaan yàlla lépp mu nekk ay yiw su ko defee kon loolu la woon loolu lañ tënkoon di ñaan yàlla subhanahu defal ñu tawfiq ñu xam ne lii lenn la ca rek waaye am nay borom xam-xam yi ci bind ay téere di wax ci suura suura kese ay téere di ko ci wax kon nekkul mbir moo xam mu simple la moo naan ay aaya nga ciy génne wala ñaari wax lii nag mbir la moo xam ni amuk solom tax na sàmm ko mën naa tax sunu daawa di gën di avancer toujours waaye ñàkk koo sàmm mën naa xajamal sunu daawa ndax mbir yépp mi ngi war di balloo ci suura lépp luñ jëfe te balloolu ci suura doog a ñëw rek échec yi lañ gën a yaakaar ci njariña te bu fekkee fa ballukaay ba nekk baaxut wala móol yañ fa teg dëgërut bi la sax buy ba wax muy daanu loola kon buñ ko moytoo jëfandikoo li yàlla sant bu yonentee moom mi gën a sellum xel wa shaawirum fil amr kon keneen ku dul moom taxul di wax nu ngi ñaan yàlla mu defal nu tawfiq defal leen ko li fi jotorok lu mu néew néew néew suñu borom defal nu tawfiq ak man cee jariñoo li ci nekk ci ay njariñ lu ci rot ci ay njuum te ñu xam ne noonu rek la waroon mën a demee li jub mi ngi bàyyi koo ci borom subhanahu wa taala dëng ci ñun la hada wallahu taala alam wa ahkam wa aadal wa sallallahu wasallam ala alxabib muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain aywa
jazakallahu xayran wa ahsana ilayk waxtaan bi jàpp naa ni oustaz ñang dafay wax ni li mu waajal bariwul waaye ñun de li ñuy recevoir bari na lool sax te gis nañ ci njëriñ yu bare bare dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yombalal ñu rek ba li ñu fi jàng ci ay jàngale mu nekk loo xamante ni dana feeñ ci sunu jëflante yi di ñëw wax nañ bu baax ngëneel bi nga xamante ni wala bokk njëriñ yi nga xamante ni def shura am na ko ak lu jëm ci wàllu teggin yu baree bare yoo xamante ni ñu bëri ci ñun dañ koy soppantal wala boog joxuñ ko gëddam dëgg waaye yooyu bu fekkente ni taxawuñ ci ni ñu ci war a taxawee rek problème dafay am waaye buñ ci taxawee dëgg-dëgg ni ñu ci war a taxawee dinañ def suñu shura te dinañ am ay résultats yoo xamante ni dafay nekk résultats yi nga xamante ni yu gën lay nekk kon yàlla ñu yàlla soppantal dafa dëgg ak topp ci mbir mi xanaa bu fekkente ni rek am na ñu am yenn laaj yu jëm ci wàllu mawdoo bi comme am na ñuy yëkkati loxo kon mën nga ñëw laaj ci ginnaaw tam bu fekkente ni am na laaj incha allah
alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah donc mbokk mi vraiment kontaan nañ ci leeral yi nga xam ne ni andi na ko man nag mu doon def benn contribution rek gannaaw donc lu mu wax yëpp ànd nañ ci mu am solo li nga xam ne nii jar na tamit ñu koy préciser donc mooy tomb bu mu mujjee wax donc maanaam confidentialité bi nga xam ne moom la ñu war a am ci shura léegi lu may contribuer mooy tamit nit ñi war nañ leen mën a wax ne ne donte ne bu ñu nekkee ci biir shura xalaat yi mën naa wute. donc waaye lu mu wute wute wute bu fekkente ne ni nit ñi dëppoo nañ ci benn kàddu donte ne yow àndoo ak kàddu boobu boo génnee waroo mën a feeñal ne man ànd ma woon ci lii donc ci loolu vraiment bëggoon naa donc mu gën cee mun a yaatal ndax nit ñi mën a comprendre ne mën na am xalaatin bu te waaye bu fekkente ne suuraa bi lii la dëppoo man su ma génnee ci biti waruma mun a feeñal ne ne man ànduma ak xalaatin bi parce que man ci biir suuraa bi laa nekk te bu fekkente ne dañoo topp règle islam yi bu fekkente ne dëppoo nañ ci ne lii la ñu jàpp donc moom it dafa war a dellu ginnaaw mu ànd ci mbooloo bi lu mu jàpp mu daal di ko fësal waaye li ñuy gis lu bëri dañuy nekk ci suuraa ñu génn ci suuraa bi xalaatin bi ñu xalaat nii ñu jëfe xalaat boobu yàlla mën na def xalaat bi échoué yow nga wëlbati ko ci ginnaaw ne waxoon naa leen ko wala wëlbati ci ginnaaw ne man suñu ma toppoon sama xalaatin loolu dañuy gis ne ne day feeñal discussion yu bëri yi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko doon def ci suuraa te nit ñi waruñu ko woon di jot donc loolu bëggoon naa ko contribuer ci waxtaan bi
alhamdulilahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wasalatu wasalaamu ala rasulillah maanaam lii mooy njëriñal ndollent yi nga xam ni nit ñi dañ koy def ndax aji waajal ji moom mënul wax lépp te it mënul xam lépp mbaa mënul bañ a fàtte leen tamit maanaam loolu daa bokk ci teggini suuraa yi nga xam ne jaadu woon na sax ñu boole ko ci moom mooy maanaam su fekkente ni ahlu suuraa tëgg nañ benn mbir bokk na ci teggini te loolu sax ci teggini yi waroon tudd la bokk mooy saa bu ñu xësee génn rek jeex na xalaatu keneen ku mënti doon niil na allahuma lu dul ci benn xaala mooy ñu xam ni ba ñuy tànn biñ tànn teguñu ko jaaruñ fa ñu war a jaar doog koy tànn waaye su fekkee ahlu suura jaar nañ fa ñu war a jaar ba tànn ko comme lu mel ni gars yi yàkkant war am fa jëm ñu ne am problème comme waxtu matut nañ jël bii xalaat rek dem déedéet kooku jaaduwut ay jullit di ko def lu ñu yàkkamti yàkkamti suura du lu ndaw allahuma su fekkee nag jaar nañ fa ñu war a jaar ba tànn lañ tànn donte dëppoowul ak sa xalaat bokkul ci ay teggin ngay génn sax di feeñalaat ni yow xalaat bi nga amoon wuute na ak loolu déedéet même buñ commencé jëfee sax waroo feeñal ba léegi ni sa mbir yooyu maanaam la wuute nga ak la amoon la nga wuuteel wax ko ci jataay bi sañoo koo denc bi nga naan moo ne moo ne man de amoon naa xalaat bu wuuteeg loolu waaye xam nga rek xam nga rek lan yow moom yaa woor ndax dañ la fay teg pour ngay joxe xalaat kon waroo nëbbaale sab xalaat bu dee xalaat bu yàq na nga doog a noppi waaye bokkul ci njullite nga joxe xalaat jëluñu ko keneen joxe xalaat ñu jël ko mu am échec nga naan waxoon naa ko subhanallah yow da ngaa feebar da ngaa feebar ndax su fekkente ni loolu am na échec am da nga war a ñaanal yàlla ka ko def te nga gëm ni mbaax rek la bëggoon te nga xam ni la nga waxoon it mënoon nañ koo def échec am ndax xamoo kumpa yow. doon naa nettali benn xis sànq dama ko dog ak a neexoon mu yegg kon dana firndeel li mbokk bi doon wax mooy yonent bi dañoom usaara badr ñu dikk ñu ni léegi dañ leen di rey. wala dañ leen nangam Omar mu ni rayee leen ñëpp ku nekk nañ ko tubaatam mu dee Abubakar mu ni déedéet nañ nañ négocier nañ nangam mu ne alquran bi mu wàccee waxu Omar la ànd te yonent bi ak Abubakar ci seeni wax moom mooy ñu négocier ñu nangam bi alquran wàccee ànd ak yonent bi Abubakar toog di jooy Omar di nu mu tërati ànd ak yonent bi saa salaam di jooy bi Omar ñëwee laajte waaw lan lu xew mbaa jàmm bu dee lu jar jooy sax ma jooy. ñu daal di koy wax ni ko ah alquran dem dikkee yow la àndal est-ce que dafa nekk di ko ndamoo nan waxoon naa ko nang déedéet subhanallah moom xam na ni abubakar sax du moroomam omar nee na abubakar xam naa ni doo sama morom musuñoo daje fu ñuy njëkkante yow lu dul jiitu nga ma maaka nar a torox su ma nekkee ci suuf soo xam ne abubakar néewu fa xoolal li tey ñetti aaya wala ñeent yoo xam ni xalaat yi ba mu dikkee xalaatu omar la alquran am muwaafaqa waaye ndax day tax mu di ko ndamoo naan man ak dugg na fii dé loolu jullit du ko def da nga koy sante yàlla nag alhamdulilah waaye nag bu fekkee échec am na ci xalaatu di bi ñu jël bul wax ni waxoon naa ko suñ jëloon xalaat bi ma joxe yow kan moo la wax ni xalaat bi nga joxe bu ñu ko jëloon dana baax loolu benn la ñaareel mooy dangaa feebar ndax jullit du doxalee noonu kon loolu ñu ciy bàyyi xel bokk na ci gaaf yi nga xam day am ci suura wa jazakumullahu xayran
asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baat sa ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla sàmm daal yokk sa xam-xam waaye tamit daal ñuy jubal daal maamoon ñaari mbir yu ma doon laaj ci daal benn moom mooy ndax damay laaj dafay bokk ci aadaab shura yeeg yooyu comme léeg-léeg ñu naan suñuy def shura amoo droit socc wala ngay toog ak kenn di waxtaanoon ci suuf wala saa yuy jël kàddu nga ne salaamaaleykum mbir yu demee noonu daal beneen bi tam mooy ndax tamit day bokk tamit ba léegi ci aaraab yi léeg-léeg ñu wax la ordre du jour bi parce que parfois da ngay ñëw ba toog comme ñu wax la tey lan la ñuy def suura par parce que parfois da ngay dem ba toog euh, ñu doog la wax lan mooy xew su boobaa doo ko xalaatal bu baax daal léegi mënu laaj est-ce que kon du bokk ci léeg-léeg ñu wax la ne la jour nangam dafay am suura waaye ci nangam lañ fas yéene wax su fekkee ne mën nga koo xalaatal bu teel nga daal koy xalaatal wala tamit da ngay ñëw ba toog ñu doog laa wax li nga xam moom mooy ordre du jour asalaamaaleykum
alhamdulilah amma laaj bi bu ñu xoolee dafa mel ni ñaari laaj la bi ci njëkk bi dafay dugg ci buntu ndax nangam teggin la wala nangam du teggin Euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañ ay teggin yu ñu tër moo xam ci euh, jitaay bu ñu toog di sàkku xam-xam ci sëriñ moo xam euh, dañuy shura moo xam lépp loo xam ne ay dajale yu jullit ñi daje surtout nag sàkku xam-xam gën caa fës maanaam ay teggin yoo xam ni amal nañ ko bila shakk maanaam ñu daje di shura wala ñu daje di jàng xam-xam maanaam nit ki am seneen soxla di ko wax kooku moom dafa bokkul ci teggin ñaari yoon teggin bi ci njëkk li tax bokkul ci teggin ci bi ci njëkk mooy maanaam wax joojee ci jëmmi wax ji ci boppam dañ koy tere ci jotaay yooyu ñaareel bi moom mooy nit ki sañu ta wax lu dul daa tàggu ni ko damaa soxla diw kii jiite jotaay bi ah man de dama bëgg a génn sànq ah man de dañ maa woo ndax man na maa wuy ji mun la déedéet fayal sa portable nga ne ko karaj coupé am na ci sañ-sañ moom amir moom ki ñu jiital ndax loolu sunna moo ko ko may am maa jëmmi nag su fekkente ni soccu la man gisuma ni am na lu muy yàq ci jataay boobu man gisuma ko wallahu aalam gisuma ni benn dalil sax na bu koy yàq ndax su mën naa am nit ki mën na ci amab jubluwaay su fekkente ni comme wax moom mën naay soppi gémmiñ ak yu demee noonu comme ni ko niñ ko xamee su fekkee nit ki aajo woon na ko mën na koo def su fekkente ni nag maanaam ki jite jataay bi da koo tere bi laa sag kooku amoo sañ-sañu def ko même boo ko bëggee def mu ne la tegal sa socc bi tegal sa nangam fayal sa portable da nga ko war a fay kooku ndigal la yuy bàyyi koo ci moom te islam moo ko jox sañ-sañ boobu amma jëmmi yeneen yi ci des nag yoo xamante ni moom islam waxu ca dara su fekkee moom mi jiite waxul dara ci jotaay bi su booba bi laa chaque mën nañ koo bàyyi bañ caa wax dara suñ gisee ni mi ngi nuy gàllankoor nag su boobaa waree su koo def wallahu aalam leer na waaw beneen mooy balaa muy jël promox salaamaaleykum loolu moom gisaluñ ko dalil man gisaluma ko dalil dinaa wax mbokk mi mbokk yi maanaam bëgg a laaj xalaat wax sa déedéet maanaam mën ngaa fortas wala nga def benn signe waaye salaamaaleykum maanaam dafa am loo xam ne ay ibaada la salaamaaleykum nekkul benn benn xawma symbole lañ koy xëy déedéet du loolu salaamaaleykum ibaada min al ibaadaat jaamu yàlla la jaamu yàlla nag kenn waru koo def lu dul daa tege ci ab dalil kon sañu maa ñëw wax salaamaaleykum fu salaamaaleykum saxul woon léegi la am kay mooy ku dugg si daa war a wax salaamaaleykum su génnoon léegi duggaat ak lu mu gaaw gaaw donte benn seconde la daa war a waxaat salaamaaleykum man ak yow bu ñu àndee oto séparé ñu wala garab wala mën nañu wax asalaam bu ñu dajewaatee comme ni ko imam Nawawi di waxee ci soo demee ci Riyadou Salihine ak yeneen ak yeneen sa soxnaa ne ci néeg bi sax nga gé dugg salaamaaleykum génn dox dikkaat salaamaaleykum ak lu ngeen jege-jege na nekk sa soxna amma jëmmi nag bëgg a jël palor ni salaamaaleykum kooku moom gisaluñ ko dalil nu ngi koy def nag waaye bu amee dalil man xawma ko wax dëgg yàlla te li ma jàng ci nuyoo yëpp gisaguma ci fu mu saxee léegi nag comme gisaguma fu mu saxee nag maanaam bàyyi ko mooy li gën bàyyi ko mooy li gën lépp loo xamante ni maanaam ak ibaada la rek maanaam bàyyi ko moom mooy li gën comme ni nga xamante ni yenn ci saxaaba yi doon nañ ko def ku mel ni Cheikh Albani booy déglu lenn ci ay kasetam da ngay gis lu mel ni mu koy jàngale benn waaye di laaj mu ne asalaamaaleykum mu ne ko dinaa la wax waaleykum salaam ba pare nag waaye xamalaa leen li nga def di sunna ku rafetoon ay jàngale la rahimahullah mu ci lay ne ci li maanaam kenn ku ko defoon ci kanam Abdullah ibnu Amar Tisli xaw ma lu mu waxati sax maa ngi koy fàtte waaye lu mel noonu la defoon moom it kon maanaam wan la ni la maanaam loolu moom gisuñ mu sax ci sunna wallahu aalam keneen ku ko gisut xëy na man gisaguma ko wallahu aalam
jigéen ñi bu dee am na question.
wax aywa waaw loolu maanaam ci buntu organisation donc nag lay dugg nag loolu moom nekkul loo lu borom lu ma gis ni borom xam-xam yi tër nañ ko ni balaa ñoo suuraa foog ñu wax ni lii la ñuy suuraa ji déedéet maanaam liñ xam ci sunna lañ doon suuraal nekkul loo xam ni dañ naan comme ni ngeen koy defee seen maam parce que xam nga liggéey tamit day wuute léeg-léeg loolu nañ ci bàyyi xel ñoom seeni suura nekkul woon dañ naan suba ci ngoon nañ daje am nañ réunion déedéet ñoom seen mbir yi nekkul woon loolu nag ci buntu organisation lay doon borom xam-xami sharia yi dañuy wax ni lépp lu dugg ci buntu organisation suñ ko xoolee gisuñ ci lu ci islam bañ rek dagan na al aslu fil ashyai al ibaha mbir yépp dañ naan dagan na ba keroog ñuy gis nag lu islam ni ah lii nag ci mbir yi la bokk waaye nag moom am na texte bu ko xaraamal amma jëmmi nangam ji ci lañ war a suura ah mbokk yi daal di ciy xalaat balaa ñoo dem bila shakk lu jaadu la te organisation laaj na ko ndax am na mbir moo xamante ni boo nee kët ni jonn ñu wax la ca rek mënoo ca joxe sa xalaat loolu day faral di am kon nag ñun suñu organise suñu liggéey moo laaj loolu te gisuñ lu ko aayal ñaareel moom mooy li ëpp ci lu ñuy suuraal nekkut lu ñu kët ni jonn xam nga léegi di ngeen jékki-jékki bu yàgg benn mbir ni karaj boo xam daa laaj réunion léegi léegi ci tàng-tàng loolu day am wala déet dafay faral di am loola boo amee ndax da nga naan gaa yi waajal leen nangam la ñuy suuraa bala ngeen yegg si déedéet loolu mënoo ko fi diggante bu gàtt la kon li am kay mooy réunion bu mel noonu du deesu ko ca man te moo nekkoon la doon am ñoom daawuñu waajal waajal yu yàgg yooyu am maa jëmmi ne su fekkee ñun suñu mbir la te fekk na gis nañ ni kat mën nañ jàpp fii ba mercredi bii di ñëw wala chaque mercredi am nañu réunion comme ni ko yenn organisé defee ah mercredi bii di ñëw kat bëgg nañu réunion ordre du jour bi mooy nangam ku nekk mën caa xalaat loolu bi laa sakk lu jaadu la te it gisuñ lu koy dàq wallahu aalam
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk bi ñu ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu fay ko gën gi fay laaj bi ma amoon moom mooy comme ni ñu koy faral di gisee ci yenn association yi wala ci yenn jamaa yi maanaam su fekkente ne dañuy fal ay membre comme nii rek mbooloo mi taxaw am ay candidats yoo xamante ne ñoom la ñu war a fal déedéet maanaam bu ñu waree fal maanaam benn bureau waaye ay responsable daal comme ni ñuy faral di amee léegi maanaam candidat yi ñu jug taxaw léegi ñu ne mbooloo mi ñenn ñoo ànd ci diw am ñu yëkkat seen loxo ñu compté maanaam def genre élection léegi may laaj ma ne est-ce que léegi comme ni mu amee woon ci jamono yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ahlu shura léegi est-ce que loolu nekkul ahlu shura ñoom ñoo war a daje seen biir gis ne diw yeyoo na poste sàngam jox ko ko gis ne diw yeyoowul poste sàngam jox ko ko wala dañoo war a woote comme lu mel ni woo mbokk yépp maanaam fal yi nga xamante ne ñoom ñooy membre yi est-ce que maanaam manière boobu ñuy falee maanaam ne nombre bi ñoom ñoo ànd ci diw ñii ànduñu ci diw est-ce que loolu du dugg ci cadre tànn gi nii tànn léeg-léeg mbokk yi foofu tamit jaadu na jazakumullahu xeyran tom bi tamit lu am solo la ndax ni ñuy tànnee moom léeg-léeg dañ ciy faral di juum maanaam léeg-léeg ñun dañuy tànnee aksariya te lépp ci aksariya bu ñu xoolee ci doxeenu alquran ci jàngalee alquran suñu borom moom da koy ŋàññi toujours walakin aksara annaas la yaqiluun walakin aksara annaas la yafqahuun walakin aksara annaas la yaalamuun ila axiri ma hunalik kon walakin aksara yooyu nga gis yëpp wa ma aksaru naas wala xaras bi mumin yëpp da nga gis maanaam aksar yi yàlla da koy ŋàññi kon loolu borom xam-xam yi dañ ciy sukkandiku di wane ne kon maam tànni nekkul aksar yi yàlla ah mel ni genre élection naam ñu faral diw am ñu faral diw ñu voté ko man xawma loolu man wax dëgg yàlla waxuma ni saxut ci sunna waaye gisuma ko ci li borom xam-xam yi bind gisaguma ko li nu gis kay te mu nekkoon doxalinu yonent bi te ba fii may wax ak yow gisaguma ci benn texte moo xam ci yi ma la doon nittali yépp te boo dellu ci seer yi mi ngi fi laysa bi baid maanaam la amoon kay mooy ahlu shura ñoom ñooy daje gis ni kat xilaaf ak yonent bi saa sallam war naa am ku ko toog ndax dañ daan ñii nañ fal Abubakar ñii fal Omar ndax dañ daan ñii day kii day posé candidat kii posé candidat moo ne loolu amoon na ndax waa ansara am nañ kuñ posé woon ni kii lañ bëgg mu falu waa muhaajirun est ce que dañ doon wax ni kaañ ñi kaare ñoo moo abbakar ku nekk ñu fal déedéet waaye magi saxaaba ya ñoo daje xool gis ni ah abbakar kat nii abbakar kat naa moo ànd ak yonent bi fii yonent bi ci peggam la ko daan teg bañ na ko bu xeex masaana am bu amee mbaar moom nekk sax ci peggam la koy dugal ku muy batal danaan abbakar soo ñëwee sama ginnaaw gis abbakar ñu ne ah kon nag dëgg-dëgg yii buñ ko dajalee danañ gis ni kat kenn topp ci bànnee xam waaye gis nañ ni abbakar war a fal noonu la julli ñu doon fala seet ci wàllu ragal yàlla ak nit ki ak ragal yàlla nangam loolu nag ahlul xal ahlul ahlul sura ñoo koy def amma jëmmi nag nañu tànn kii am nañ ko comme exemple yaakaar nañu diw mën na ko yaakaar nañu diw mën nañ ko yaakaar nañu diw mën na ko léegi nag nañ nañ leen voté déedéet loolu du xàll bi de xàll bi mooy nañ jël ñooñu ñu yaakaar ne mën nañ ko ñu tànn ci seen biir ndax ñaari jiit mënuñoo am kenn rek lay doon ñoom ci seen biir luñ baax baax dana am ku am lu ëppalee morom ma lenn bu doon ci imaama comme bu doon ci imaama soo demee ci kutub sixa yooyu sunan yi bu ñuy tànn imaam da ngay gis na ko na ko xadiise ñëwee bii di wax ci ki gën a mokkal alquran bii di wax ci ki gën a njëkk a gàddaay bii di wax ci ki njëkk a tuub aqdamuhum sinnan aw aqdamuhum silman bee di wax ci ki gën a mokkal alquran bee di wax ci ki gën a dégg diine gis nga ci yooyu étape yooyu la ñuy jaar tànn ba keroog ñuy gis ko ca ëppale ñu doog koy fal moo xam xale la moo xam mag la bu doon xale la sax bu amee sept ans li gën a wér incha allah ci sunna mooy mën naa nekk imaam imaamu paa yi ndax sax na ci sunna amr ibnu salama nekkoon na imaam di jiite yi paa te baayam cala te juróom-ñaari at la amoon ay yéreem sax baaxut woon nag loolu lépp amoon na kon mbir la moo xam tegul ci ay bànneex ki bëgg-bëgg ak nii laa ko gisee waaye mi ngi tege ci doxalin wi kat nii la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam
man question bi ma amoon euh, dama doon laaj euh, masalan léeg-léeg dañuy dañuy dégg ñu naan euh, maanaam shura bi bu jëlee benn décision euh, keneen ku nga xamante ne dafa euh, amoon beneen euh, xalaat bu wuuteeg boobu da automatiquement dafa war a euh, ànd ci loolu mbooloo mi euh, décider wala ñenn ñi liñ décider quoi liñ ëpp donc euh, est-ce que loolu dafa am ay limites wala bu fekkente ne am na ay limites yan mooy limites yi nga xamante ne moom la am daal le fait que ñu naan nit ki à chaque fois décision bu ñu mënti jël rek bu ñu génnee maanaam dafa war a appliquer loolu bu amee ay limites yan mooy limites yi nga xamante ne moom la am.
alhamdulilah ala kulin am nay limite maanaam mbooloo mi moom kenn sikkut ci ni lépp luñ tënk ñu ne lii ahlu suuraa ñoo ko génne ginnaaw bañ jaaree fa loolu defe naa jun naa ko sànq ci biir ginnaaw bañ jaaree fañ war a jaar ba tànn ñañ war a tànn tànnee leen lañ leen war a tànnee ba xam ne ñii kat wóolu nañ leen ci def leen ahlu suuraa amatul sañ-sañ ci moom julit bi ahlu suuraa bu ñu génnee nangam ma wuuteeg ñoom loolu amatoo ko sañ-sañ comme ni nga xam ni doo am sañ-sañ ki leen jiite muy ki tuddee amir beeg ak tur wu ñu ko mën a tuddee mu nekk njiit ñu di ko moy waaye nag lu dul ñu gis loo xam ne lii kat daa mu xaalafa ak sunna wala boog lii daa mu xaalafa ak diine ci anam gu gën a yaatu wa illaa boog xalaat bi donte ahlu suura wala ak xàll mën nañoo génne fekk na loolu day jur ay lor te fekk effectivement day jur ay lor bu boobaa man ma gis ne day jur ay lor nga am yaqiin ci li may wax loolu day am nekkul nag sa gisunu bopp ngay sukkandiku jàpp ne lii day jur ay lor waaye am nga yaqiin bu wér ci ni ndax léeg-léeg li borom xam-xam na al yaqiinu laa yazulu bi shakk maanaam li ñu am yaqiin kenn du ko dàq ci ay njort ki nangam ahlu suura est ce que ñoom am nañ yaqiin ci ne liñ tënk buñ ko génnee def ko mooy baax loolu amuñ ci yaqiin waaye léeg-léeg am na qaraayin yoo xam ne suñu borom mën na ko baaxee jaamam ci qaraayin yooyu lay sukkandiku ci signes yooyu xam ni lii kat baaxut su boobaa am nga sañ-sañu taxaw nag lii duñu ko def wala bala ñu ko def nañ nangam nangam su boobaa islam may na la ko waaye loolu day tege nag ci yaqiin ju wóor du loo yaakaar wala gisoon naa ñoom diw bañ ko defee nii la nangam déedéet yow lii yaa leen ci ëpp expérience donte bokkoo ci ahlu suura wala donte bokk nga ci yaa leen ci ëpp expérience xam nga ni xil lii am nga yaqin ci ni buñ ko defee du sotti ah su boobaa bila shakk loola moom war nañoo def ak taxaw seetlu ahlu suura tamit war nañoo am nag ak matak dal gu doy ni loolu mu joxe te moom mu leeral ni am na ci yaqin ah ñu daal di koy jël nag càmbariwaat su fekkee loola defuñu ko te yow nga gis ni am na ak lor wala mu xaalafa nag sunu loola mën nga leen caa bañ a topp soo leen ci toppul doo am benn bàkkaar wallahu taala alam
am na ñetti laaj yu bàyyi ko ci sëriñ fële
da bi njëkk bi dafay laaj mu ne ndax le fait que nit ki ñu jàpp nit ñi ñu jàpp benn ahlu shura jàpp benn det benn bés ci semaine bi ne chaque jour dañuy def shura ci bés boobu mu ne ndax loolu du dugg ci wàll perte temps ndax yenn saa yi mën nañ bañ a am mawdo boo xam moom la ñuy def shura ma dem ci beneen bi beneen bi
waaw loolu moom ba léegi dafay dugg ci buntab organisé wu rek kenn du wax ni suuraa bi dañuy bàyyi ba lu ñu war a suuraa rek toog suuraa waaye kenn du wax ni chaque semaine dañuy suuraa xas ba nit ki nit ñi li ñuy téwoo toujours bunt boobu dafa am bunt yoo xam ne maanaam islam du ko tënk bu ko bu mu nekk buntu yaatu lool mooy ndax liggéey bi daal laaj chaque àllarba ñu réunion wala déet ala sabilil misaal chaque mercredi dañuy réunion est-ce que liggéey bi laaj na ko wala déet ñu gis ni liggéey bi rigueur bi mu àndal ak cawarteeg ñaxlaf gi mu àndal dëgg dëgg laaj na chaque mercredi ñu réunion ndax diggante mercredi ak moroma fokk am yu fi xew yu jar réunion sikk nekkul ci ni organiser ko mercredi bu jot utal ko waxtu utal ko nangam dara nekku ca ndax gisuñ lu koy dàq amma jëm mi nag su fekkee li mu wax da cee am mooy léeg-léeg ñu toog du ñu am lu ñu war a waxtaane wala dañ koo fixé noonu rek ñun ñëw bu ñu amee lu ñu war a waxtaane wax ko wala wala benn point boo xam ne daanaka moom sax mën nañ na ko bàyyi mercredi del siwaat bi laa sax kooku yàq waxtu la kooku nag du dagan li tax dagan mooy jëmmi fixé réunion bi loolu taxul ñu wax du dagan waaye waxtu wa ngay yàq foofee lañ digal jullit du yàq waxtu kon lu mu ci mënti doon rek jullit ñi ñooy xool ba gis li ñu nekk maslaxa ca la ñuy liggéey ndax aajo woon na chaque semaine ñu am réunion aajo woon nañ ko dara nekku ci aajo wuñ ko bu nu ko def foofu moom buntu la boo xam mi ngi aju ci nit ñi waaye ajuwut ci àtt islam lu dul dañ caa gis lu wuuteeg doxale na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu alam
bi dafay laaj ndax jigéen dina mën a fekkee shura boo xamante ni dañ koy tenir ba vingt vingt heures si guddeeg yu demee noonu te moom teewaayam foofu lu mënta ñàkk la ndax su boobaa dina dagan muy toog foofu ba jamono jooju ak ndax guddaayu shura lu ñuy limité la ndax am na ko laaj ndax jamono yent bi shura daay na daan na dépassé quatre heures de temps quatre heures quatre heures de temps waaw
waaw alhamdulilah ala ko leen jigéen fekkee suuraab ay góor mën naa nekk ci kaw suñuy suuraay nañu sàmmonteeg njàngale yonent bi saa sallam maanaam wéet bañ faa am loolu ñuy tuddee wéet moom na bañ a am waaye su amee rek bi laa sakk war na noo xoolaat doxalin wa kooku benn la ci yi ñu war a sàmmonteel ñaareel moom mooy guddee gi it ajuwut ci guddee gi wala ñàkk guddee gi ndax mi ngi aju ci wóoraayu jataay baag ñàkk a wéet ga rek barab bu mel ni université fii nga xamante ni mbokk yaa ngi fi bari nañ fi lool boo jógee fii laa dëkk awma fenn fu may dem jëmuma fu sori ak yu demee noonu maanaam daal conséquences yi ñu jàpp ni yi war na cee maanaam su fekkee dàqu na su boobaa jigéen ji war naa mën a fekkee suuraa bi te it nag na sàmmanteeg jigéen bu toogee ki góor nam war a toogeeg nam war a defee même bu dee wax nam war a waxee su boobaa dara nekku ci amma jëm mi nag su fekkente ne jigéen la joo xam ni féetewul fii université ma ngay ñibbi ba wakaam ci misaal wala ma ngay ñibbi ba géejawaay ñu war a suuraa mu guddee mu pare di ñibbi bi laa sakk kooku moom lu nu war a xoolaat la ndax guddeeg jigéen moom bokk na ci li may faral di wax mbokk yi suñ koy man di moytandiku moom moo gën ndax ñag-ñag bi yonent bi doon ñag ci diggante góor ñi ak jigéen ñi nag danañ ko ñag ba mu ñagu nag moom ak lu ñu am ay bëgg-bëgg ak lu ñu am ay sentiment ak lu ñu mbir mi arrangé arrangé la yonent bi doon ñàkk nag nan ko ñàkk ba mu ñàkku mooy relation bi am ci diggante góor ñi ak jigéen ñi toujours nan koy limité gaa nag duñ nangu ku ca ëppal nag wax dëgg yàlla ëppal ca ba comme ni ma koy waxe mbokk yi jàpp ne doxal na yonent bi mooy maanaam góor gi jigéen ñi siquñu dara jigéen ji mënta dugg ci biir liggéey bi ah bu ko defee bu may wax ak moom sax dama koy wan ginnaaw mu wan ma ginnaaw yooyu ay mbir la yoo xam ni moom ma anzalallahu biha min sultaan kooku amaluñ ko ay dalil kooku moom ci taraayu nit ki lay bokk ak gisuñu boppam waaye la doon am kay mooy góor dana am jigéen ci soxla ci jigéen wax ko jigéen am soxla ci góor wax ko ah jigéen ji daan am ay fekkee jataay yonent bi fa nga xamante ni même bu nekkul suura sax day nekk loo xam ne mbiri julli ña lañ cay wax même bu tuddul suura loolu da doon am waaye nag ñu sàmmanteeg ñàkk ba duñ nangu tamit ku ca yéesal nag koo xam ne dañu naan aywa amul problème mouvement bi jigéen ñee góor ñi la nañ ko bokk waaw léegi jigéen ñee góor ñi sëmbaxloo comme ni ko ñenn ñi defee ah déedéet sëmbaxloo moom góor ak jigéen mosul am ci doxalin yonent bi sallallahu alayhi wasallam li am kay mooy góor ñi ci góor ñi jigéen ñi ci jigéen ñi kenn ku ci nekk sàmm njàngala yonent bi kon daal su nekkente ni jigéen ji mi ngi fekkee suuraa góor ñi te bu ko fekkee wéetaange du ca am ñaareel ba guddee ko gisuñ ne dana jur ay lor fiñ koy suuraa mën na am seen biir kër la moom wala boog moog seen kër ñoo taxal wala fii ci biir université bi nga xam ne fii rek fu jege fii lay ñibbi lenn luñ naan ñàkk a wóore di am na ci su boobaa ma mënees na ko bàyyi waaye nag toujours am na lu ñuy gën a taamu mooy di ko def bëccëg su dee mën a nekk moo gën moo gën wallahu aalam moo gën a tekkiw ni loolu rek mooy dagan nag waaye loolu mooy li gën wallahu aalam beneen bi ci des fàtte naa du loolu mooy nekkoon laaj bi aywa wallahu aalam
ma dañuy tënne ci ñaari laaj yi benn bi yaakaar naa xaw na leer ci jotaay bi sax ci waxtaan wi dafay laaj mu ne ndax ci shura dinañ permettre yenn saay ñu tudd benn waay boo xam ndax dafa am problème boo xam ne mën nañu discuter ñu tudd waa ji jaar ci turam wax loo xamante def na ko mën na am lu nekk lu ñaaw ndax loolu dinañ ko permettre kii moom nee na ndax koo xamante ni dañ ko tànn pour mu fekkee shura te moom xool na conditions yi moom remplir ko ndax moom dafay désister maanaam dafay dellu ginnaaw ne duma folli leen maa ngi demee noonu ndax noonu lay def wala nu muy def.
waaw bu dee laaj bu njëkk bi nga ne mooy. waaw tudd lu ñaaw li nit ki dañuy xool ndax am na maslaxa wala déet ndax tudd gi lu ko sabab. foofu tamit daa bokk ci bunt yi nga xam ne moo tax damay wax mbokk yi toujours maanaam masalay diine nañ ci teey bu baax ndax am na masala yoom duñ la wax nangam rek acca dagan na wala araam na déedéet comme masala yoo xamante ni dafa am aajo ak faram-fàcc. tudd nañ lu ñaaw bi laa sakk tudd gi ñaaw tudd lu ñaaw moom ci nit daganut ci xayb ci fàddoom léegi nag ndax dafa am maslaxam wala déet ndax tudd lu ñaaw day nekk ni jëw day nekk leneen ak leneen ak leneen te xam nañ bàkkaaru jëw am maa jëmmi su fekkee tudd gi ñu ko tudd ci suuraa bi dafa am maslaxa comme joxewuñ ci misaal mën naa cee joxe misaal tudd gi am na maslaxa léegi maslaxa bi lii la mooy kat dafa am benn problème bu ñu am mooy dañoo am benn mbokk bu ñu daa jël lu moomut ba mbir mi nar a yàq ci diggante mbokk yi ñu ne nañ ko suuraal ah kenn koo xam ni moom ñu ngi suuraal waaye mas naa xam ni diwkat am na lu mu mës a jël lu te mu wóor ni dëgg la su boobaa mën nañ koo wax wax ga du wàññi dara misaal ak misaal yu bari yu ni mel yoo xam xam nañ ni wax ji ci buntab defar la dootul tudd jëw ndax borom xam dañu alqadxu laysa bi gibatin fii sittatin maanaam loolu ñuy tuddee jëw tuddal nit ki ci lu fàddu loola du tudd jëw ci juróom benn mbir yi bokk na ci mooy kii dem ci borom xam-xam di ko laaj atteb diine te atte ba bala nga mu koo mën a leeral fokk nga tudd diw moom wax jëf ja nu mu dee mu doog a joxe atte ba kooku dara nekku ci dalaa tooñ ma di ko kalaame fokk lam tooñee doonte ak jëw lay tuddoon tudd bu dul woon ak tooñ loolu du garaaw wala nit ki dafa def ay njombe yoo xam ne war nañoo ko moytandikuloo mbokk yi ñu wax ko ñëpp dégg ko ngir mbokk yi moytandiku ko kooku dara nekku ca wala boog dañoo sàkku ci yow nasiha laay ma biir diw loo xam ci moom nangam nangam ndax kat dañoo bëgg a séq nangam nga wax ca la nga ca xam ila axiri ma hunalik ak mu wa muhadirin maanaam diw dafa def ak njuumte wala nangam comme ni ko borom xam-xam yi di waxee maanaam alqaddu fa laysa bi gibatin fi sittatin mutadallimin wa muhadirin wa wa teewlatuma bay dund juróom benn la yoo xam ne benn bu ci nekk maanaam du dugg ci buntab jëw su ko defee yooyee su fekkee am na ay sabab nag wa man talaba al i'anata fi izali izalati munkar diw def na loo xamante ni kat moom daa ñaaw ñu bëgg a waxtaanee kat ngir ñu jéem a seet kan ci mbokk yi lañ jàpp ni kii kat parce que mbooloo mi bu ñu demee laaye ko biir ah diw kat xamee nañ ko jikkob daara yi kon du sotti ah léegi nan la ñuy def kon léegi nañ sàkku ci mbooloo mi ñu suuraa wax jëf ji wax diw wax nangam seet ci mbokk yi kuñ jàpp ni kii kat moo gën a nangam ñu yabal ko ci moom kon tudd gañ koy tudd dara du ci nekk wallahu taala aalam beneen bi ci des defe naa am na ku laajoon bu ñu tëb sànq moom mooy limité suura yaakaar naa dama koo tëb waaw loolu la ñuy mujjee kon maanaam suura ndax dañ koy limité ci ay waxtu nangami waxtu lañ ko war a def kooku wax dëgg yàlla awma ci xam-xam ndax nangami waxtu lañ war a suural waru lii waru koo dépassé kooku moom xawma ko xas ba nit ñi lañ soxla rek kooku tamit damay jàpp ni day dugg ci buntab organisé wu ndax am na suura yoo xam ni am na suura yoo xam ne li ma jàpp mooy warta mën a jël sax 30 minutes benn xadiya la ñuy waxtaane boo xam ne xadiya bu gàtt la kenn ku nekk joxe ci xal ñu gaaw génne jeex na waaye am na mbir yoo xam ne bu ñu ko doon suuraal tey mën nañ cee def cinq heures de temps te bu ñu paree lépp ay tiyaaba lay doon lu tax parce que ñi ngi waxtaane te ñu doon wax lépp yiw la te ba léegi gisaguñ xal ñu ngi discuter na kii day indi benn xalaat ba ñu waaj a jéng keneen indi lu ñu jàpp ne ah lii kat bu amee mën naa jur nangam yooyee mbir loo xam ne day aju ci nit ñi ni ñu organiser woo am maa jëmmi nag ñun li ñuy def nag mooy yàqu waxtu léeg-léeg da ngay gis nu ñu war a limité te fekk li tax suuraa bi gudd ci ñun la loolu day faral di am pour nga fekk ay nit ñu organiser wu ba nga xam ni seen suuraa bi li muy gudd gudd gudd bàyyiwuñ benn waxtu bu sànk loolu lu jafe la amaa jëm bi nag bu fekkente ni nag ñu ngi sàmm la ñu war a sàmm yépp ci organiser woo defar waxtu weeg yooyu yépp ba dem ba ca mujjantal gën a wax dëgg yàlla ñu gis ni suuraa bi nii rek la mën a demee bu àggoon 5 heures tan gisuñu lu koy dàq xas ba nit ñi lañ soxla ci aw waxtu wallahu taala aalam waaw waaw kay boobu mooy laaj bi ñu ngi fàtte moo tax bind baax maanaam bu fekkee kenn dafa gis ni moom tànnoon nañ ko mu bokk ci ahlu suura ba pare moom gis na ni condition yi ñu wax ni yii kat jaadu na ci ahlu suura ñu am ko moom amu ko wala am na bu mu ca amul ndax day démissionné wala déet déedéet kooku li ñu koy nasiha lii la dafay